السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بقي بقي طالبي بقي جلدي لدينا يولينا زيارة تبقى سبتا دبي توب مكان أخ مكان توب يبال ناق نيب لنيا نيب نبقى بلانت أخ kon kàddu yi moom jarul guddal góor góorlu bu baax rekk ci njub njub mooy buntu lépp lu baax nanu gën a góorlu bu baax waxuma sax nu am diine waxuma it nu bëgg diine waaye li mu wax mooy nu gën a fonk suñ diine lu gën a fonk it sunu taalube jikko yu baax yu tedd yépp ñu makaarimul axlaaq lépp ngi ci biiru taalube lu góor góorlu ci ñetti jéego yooyu rekk lu nu gën a suubu ci yow yoon di gën a xam sëriñ bi di gën a mën a dund sëriñ bi ndax sëriñ bi moom boolewul ak dara boromam ak yonent bi mu ko tegtal euh, jërul ñu du ko guddal mën nañ koo yemale foofu rek di sant ñépp nag ci liñ ci weesu ci doxin wu rafet bi nga xam ne xormay sëriñ bi ak tawfiqam mu nu gatandu ban mana a jéggi li nu weesu jéggin wu gën rafet noo ngi koy noo ngi sant suñu borom bu baax mi nu boole sëriñ bi di sant sëriñ bi bu baax mi suñu lépp di kon jërëjëf jërëjëf di ñaan bu baax baax suñu borom gën noo Touba. nawet bi jiitu ci lan ci lépp di ko ci séentu suñu borom gàttal nu ci ak tawfeex sëriñ bi ñu amee ko nan ko bëggee wala lu gën a sax kawe suñu njort loolu lépp nag cant gi moom jiitu na te kanam rekk la jëm lu nu mën a bëgg ak lu nu wax mën a xalaat cam di moom na ba noppi la ca des yaakaar rekk la ak rafet njort te loolu yaakaar ji mat sëkk rafet njort gi amul fenn fu mu yem jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf